sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Modou Mamoun mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Salaam bi ginnaaw bi fii sëriñ Mor Faati Mbàkke bàyyee ko moom sëriñ Jili Mbàkke ànd ak njabootuk maam Cheikh Anta Mbàkke gépp ñëw fii ci Daarul Minan fekk fii sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru di xalifa général des Mourides fas yéene jaayanteeg moom yeeslu ànd kook njabootuk daaru salaam gépp ni nga xam ne noonu la ko yoonu murit baaxoo def bi ñu agsee moom sëriñ Jili Mbàkke ziar na sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru jébbal ko àddiyam yeesluwaat salaatun wa tasliimun

kàddu Serigne Cheikh Anta ci ndigalul Serigne Djili xalifa Cheikh Mouhamadul Mamoun ak mboolem njabootu maam Cheikh Anta gépp nee ñu ngi maase di ñaan yàlla mu gën a guddal sa bi te gën a dolli sa wér gi te nangul la sa liggéey bi ci Serigne Touba te mbooleem naal yëpp nga àggale ko ba naalaat yeneen naal ci barkeb Serigne Touba nee nag tey jii jóg nañ ànd kër borom gaawaan yàlla defal ñu feex ak kër Serigne Afia ñu fekk ci Serigne Moustapha mu Serigne Abdoul Akram te yaari kër yi du yaari kër genn kër rek la nee nañu ànd ak sunu sëriñ bi di sunu wajur di sëriñ di Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun mu ànd nag ak mbooleem fukki buntu kër yi borom sëriñ Moodu Maamun yi ak benn benn benn kër desul waaye àndi ak kër borom gaawaan ñi nga xam ne seen maam ya ñoom la sëriñ Tuubaa rafaatale woon borom Daaru Salaam ak dëkk ba ñoom ñëpp ñu ngi nii teew la ko tàmbalee ci kër sëriñ Bara Touré kër Serigne Mor Fatou Touré kër El Hadj Moundiaye Diop kër Serigne Massamba Gueye ak mboolem buntu kër yi seex yëpp àndandoo nañ ànd ak njabootu El Hadj Serigne Tako ci njiitul Serigne Mbacke ant mii nga xam ni moo fa nekk tey jii di fi doomi doomi El Hadj Serigne Tako nga ñaanal ko yàlla mu sàmm ko te dëgëral ko fa mu ànd ak sa doom ju baax jafa ne di Serigne Ahmadou ak njabootu sëriñ Mor Mor ma nga xam ni barki démb rek na dem àjjana te sëriñ ax ma nekk fa nekkal la fa waaye toog ci ginnaaw way juróom wii ñu ànd it ak njabootu sëriñ Asfaale ma nga xam ne moom it dem na na waaye bàyyi fa ak njabootam ñoom ñëpp ñu ànd ak sëriñ Mbacke Anta mii di seen wayjur sëriñ Mbacke ñoo ànd ak sëriñ Jiili nee na ñu ñu boolewaat seen bopp boolewaat seen pas-pas boolewaat seen yéene di ko tegaat sa loxo yow li nga xam ne yaa fi sëriñ Tuubaa nee na ñu ñëwaat di leen jébbalaat sa seen bopp di ko tegaat sa loxo yow mi nga xam ne yaa fii Serigne Touba na maam Cheikh Anta toppe woon Serigne Touba lañ fas yéenee toppe ci sa ginnaaw duñ la duñ la jiitu duñ la teqatal waaye duñ la jox benn xalaat waaye lépp luy sa xalaat wala sa ndigal baax see ci Daaru Salaam fas nañ ko yéenee jëf nee na mi ngi sàkku ci njaboot bi nga ñaanee leen yàlla lépp nosu nekk benn ñu ànd ak moom liggéeyal Serigne Touba ci sa ci sa jëmm ji nee na loolu sëriñ bi nee na mi ngi koy nee eh, na xam ne ëpp fii waaye daf leen a lu yam bu demee yóbbaale ñu des ñëpp waaye daal nee na ñu ngi fàttaliwaat seen yaakaar di fàttaliwaat seen taxawaay di fas yéene déglu sa ndigal lépp loo na def ko incha allahu rabbi. ginnaaw bi sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati nay kàddu santaat leen bu baax a baax nangu leen jébbal gi ak jaayante gi fas yéene ànd ak ñoom liggéeyub sëriñ tubaab yi na xam ne noon la ko maam Cheikh Anta àndee Cheikhul Khadim sëriñ bi nee na rabbil alamin nee mi ngi dellu di santaat di gërëm bu baax di nuyoo mu di nuyoo mbokk yu baax yu tedd yi toog te kilifa yi jiitu ji mu ne dégg na kàddu yi nga xam ne sëñ Fallou Gallassi la yëkkati na ko mu ne sant yàlla moo jiitu lépp mu ne kon moom mi ngi gën a sant yàlla bu baax mu ne bi jataay bi amee seen diggante ak moom mu ne digganteem ak kër ga mu ne moom foofu la jóge mu ne kon nee na ngi gën a sant yàlla bu baax a baax sama xel dal na fa bu baax. ne xelam dal na fa bu baax a baax. mu ne ak taalib rek moo fa nekk. mu ne yaakaar na ne buñ ko doon jàngale. mu ne foofee ca Daaru Salaam fa lañ koy jàngale. mu ne diggante maam Cheikh Anta ak sëriñ bi. mu ne loolee mu sa gis dara lu dul loolee mu ne jamonoy sëriñ Moodu Maamun ba léegi mu ne loolu rekk la fa gis mu ne fa tabarakallah sëriñ Moodu Roqaya muy feeñu bi mu koy feeñu mu ne boobu la xam kuy dëgg dëgg dëgg mu ne bi mu koy feeñu la xam kuy dëgg sëriñ Moodu Roqaya bu rëy moo nekk ci moom mu ne posture boobu moo nekk ci sëriñ Cheikh Anta mii moo ko may liitam mu ne kilifaam yii mu àndal mu ne lépp ci ak taalibe doyloo ko ba di ko jox kàddu mu ne loolu rekk la mu ne dëgg googu mu ne dëgg googu rek mu ne xelam dal na fa bu baax a baax mu ne ndax loolu rekk lay ut dëggu googu ci taalibe mu ne jéem a dund sëriñ bi mu ne loolu rek lay wut ne loolu gis na ko fa mu ne ci sëñ Modou Rokhaya mu ne ci sëñ Modou Rokhaya la ci amoon yaqin mu ne yaqin jooju nag moom rek la gis sëñ jiili mi itam bi taalibe rek la ko mu ne kon alhamdulilahi ne loolu rek moo fi ne dund sëriñ bi rek moo fi ne fas yéene doon jullit fas yéene doon taalibe sax ca dàkk jéem a xam sëriñ bi waxtu bu nekk ñu ci gën di dolliku di ci gën di mucc waxtu wu nekk ñu di ko jéem a dund di ko jéem a dund mu ne bi ko saxee ngir jéem a koo xam. buñ saxee ci jéem buñ saxee ci jéem koo xam. jéem koo seex ci jéem koo dund. dañuy yokk di wéy. mu ne ngënal suñ borom yi. amul yemuwaay. te yemaliwu ci fenn sëriñ bi. mu ne kon nag loolu. loolu rek moo ci solo. nañ góorgóorlu lu baax a baax. mu ne ba jéem a xam sëriñ bi. di ko jéem a xam. di ko jéem a dund rek. nag li ko tëj mu ne loolu li ko tëj nag moo di taalibe rek nit ñëpp ñu fas yéene doon ay taalibe rek gannaaw bañ doon ay jullit mu ne jataay bi rek ni mu ko waxee ci la bokk ndax foofu la jógee mu ne kon loolu mbëgteem bu rëy rëy la mu ne soññ boppam bu rëy rëy la mu ne dalum xelam bu rëy rëy bu mat sëkk la mu ngi leen di seere ne li ci solo man mi ngi leen di seere ne mi ngi gën a yeesal ak jaayanteem ci seen jataay bii ak sëriñ bi di gën a fedd la xasaayam di leen ko seereel fas yéene ko ànd ak yéen rek ci solo jërë ngeen jëf mu ne xolam seet na guy xelam dal na sama yaakaar dolliku na yaakaaram dolliku na. fas yéene ko ànd ak yéen rek la. incha allah sant bu baax a baax a baax. sant bu baax a baax a baax. ci sa digganteem ak kër nga. ndax sëriñ Modou Mamoune ci boppam. mu ne jamono moom sëriñ bi ndaw la. waaye dafa mel ni moom la séddoo woon. ci lu wér. loolu nag. Eh, mu ne loolu dong mooy dund ba léegi. mooy dox ba léegi. dolli ko nag ci am cër ba dolli ko cër ba mu ne kon loolu bu delloo ko cër bu dolli ko ci dolli cër bu delloo ko ci la mu fa am. suñ borom wëlbatiwaat ci coowareem boolewaat leen. suñ borom wëlbatiwaat ci coowareem boolewaat leen. boole ñub liggéey. loolu moom boobu cant man xamul nu mu koy santee. mu ne boobu cant xamul nu mu koy ne amul benn soññ bu benn soññ ci te mënuñu ko ñàkk mu ne amul benn soññ bu muy soññ ci li ñu wut te mënuñu koo ñàkk bu mu gën a soññ ci seen jataay bi amul nee na jërë ngeen jëf bismillah